jërë ngeen jëf mbokk téléspectateurs yi bàyyi xel suñu télévision Touba TV comme ni ñu koy defee ci entretien yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci màggalu Poroxaan édition 2018 ñu ngi nii nag toog ak Serigne Mountakha Kane mën nañ ni di loxol ndeyjooru mun Mountakha moom moo ko yar xam lu bari ci Serigne bi laataa ñu dugg ci biir waxtaan bi mu ñuy xamal lenn ci jëmm ju sell jooj nag dañu lay nuyu sëñ Mountakha. ñoo ngi lay nuyu soxna Awa la sant jëmm jooju comme ni nga wax rek 1963 la ma ko sama baay jox donc. Euh, diggante bi am na ay fan tuuti waxoon naa leen ko fi interview màggal tubaa ni leen boobu lii amagut ni la mooy sëñ Touba ñun dèjà nit ñi ñu ngi koy soog di xam ci ci sëñ bi waaye ñun bi ñuy gone dèjà la ñu tàmbale woon ni mooy sëñ Touba donc sëñ Mountakha moom oo euh, ma dara lu mu jox résumé am mun tàmbali sëñ Touba léppam sëñ Touba la noonu laa ko xawoon ci màggal tubaa ak yéen euh, li ci des histoire mën naa leen wax ci baatinam wax ci nu ngeen ko bëggee rek baatin baak saayir si lépp mën naa leen jox loolu ci saayir si euh, nekkoon jëwriñu sëñ Sidi Maxtaar daanaka liggéey bi lu bëree bëri mu xam ko ba gis nga bi mu tàmbalee yoon wi liggéey bi mu njëkk a def mooy bëgg a ubbi daara ju mag joo xam ne nii yoonu murit bépp dañ ci dugal seen loxo loolu naka nga ko gisee waaw moom xeexam bépp mooy moo doon l'islam euh, vision aussi Euh, yàgg naa bëgg ba ci xaw bu nit ñi buñ seetloo Daaru Taysir am na université bu mu fay mébét yàgg naa xalaat bu yàgg foo xam ne dañ fa mën a dajale muy bu la neexee nga tudde ko université mais daara ju mag joo xam ni euh, danañ fa mën a jàngale Sëñ Tuubaa loolu moom yéene boppam la ba xalaatoon na def ko ci daaraam soppi ko université ginnaaw mooy sëñ tubaa nag yaakaar naa ne xeex bi gën a bi gën a am solo mooy sëñ tubaa mooy université boobu ba ba mu koy xalaat yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na yàgg na. donc mu nekk nit ku bëgg xam-xam yéen moo leen yar ñi mu yar en général ñoom ñëpp daf leen di jàngaloo jàngal leen. Mm-hmm. waaw xam-xam moo tax da koy wax sax léeg-léeg sax da damay wax waxam xam-xam a taxoon mu jàngaloo ma nasaraan. léeg-léeg sax ci sama dalay jékki-jékki di mu wax mi ngi ak tolluwaayam Sëñ Tuubaa euh, arafi nasaraan ak dana koy xaw réccu sax jàng ma ko jàng waaye lam ci jublu woon rek am fu ma ko féete ci xam-xam ci àddina man la njëkk a jàngloo nasaraan man la mujj jàngloo nasaraan te lam ci jublu mooy xam-xam bu dee xam-xamu arab ak xaw ma ci dara waaye yaakaar naa ne ci yoonu kër Sëñ Tuubaa euh, mook Sëñ Moustapha loo ak sëñ Saam ni ma ko xamee yaakaar naa ne bokk nañ ci eh, histoire ak ni ñu koy waxee taarixu sëñ tubaa ñoo ko gën a xam ak lu murit gépp waaw loolu gëstoom bépp ndaxte eh, ronu naa ci moom mu nekkoon ak boroom xam-xam bu mag muy sëñ bu Mbàkke sëñ Basiiru boole ko woon ak moom ñu nekk mbul kayal eh, te sëñ Abibu yaakaar naa ni ku fi taxaw ci kër sëñ Tuubaa ba ci sëñ Saaliwu ba ci moom moomu sëñ Muntaxaa moo la jàngal xam-xam te yaakaar naa ni li nga xam ne la doon ne xam-xam ci bàyyam sëñ Basiru euh, yaakaar naa ni sëñ bu Mbàkke aussi léegi na ko lépp lu mu xam sëñ Tuubaa te yaakaar naa ni bi suñ tubaa jógee sëñ Abibu bokk na ci euh, histoire du kër sëñ Tuubaa ñi ko gën a xam ba ba tax na doomam sëñ Bass Faty tamit mu ngi ubbi université Mboul Kayola te sëñ Abibu aussi yaakaar naa ne bë ëpp dundam lépp lu mu xam suñ sëñ Touba sëñ Muntaxa la ko léegi su le plan spirituel ak ci yeneen fànn donc sëñ Muntaxa addinaam bépp ci xam-xam la dund loolu la jàng euh, jamono ji gis nañu ne àdduna sépp ngi daw wëlma dëgmal si ko poroxaan màggal gi xam nañu sëñ bi fonk gu mu fonk dëkk bi daanaka li ëpp ci dundam fii ak emploi fii la koy la koy la koy passé. Mm-hmm. def na trois semaines avant màggal poroxaan. Mm-hmm. gis nañ tam ay ay ay. responsable politique ay leader politique ñëpp di ñëw ci sëñ bi waaye ku ñëw daanaka kanam gi manqué la lay wan loolu luñ ko mën jàngate sëñ Muntaxa waaw sëñ mun Muntaxa moom bu la kenn nax amul secret amul jànk euh, waxoon naa la ko tuuti ba lii amul ci sama dernier interview ak yow ci Touba niti àddina yi yëpp cër bi leen suñu borom jox dina leen ko jox waaye lii nga xam ne moom la dund ma xam ko ci moom mosu cee wàcc saa bu masaan yow fajar ba minuit loolu laa ko mas a xamee muy liggéeyam bépp addinaam bépp mooy Sëñ Tuubaa amul kenn ku ko mën a defee ci loolu kenn ku ko ci jéemi da ngay sonal sa bopp ñoom nag cër bi leen suñu borom jox dañ ko jox ba mu mat sëkk waaye yooyu yëpp yoonam nekku ci yoonam nekku ci yoonam nekku ci lu dul Sëñ Tuubaa ku bëgg ànd ak moom Sëñ Tuubaa nag ku ko ci jéem a jàppale danga nga mën a ànd ak moom waaye yooyu ngay wax yëpp yoonam nekku ci yoonam nekku ci ba ci ñun ñi mu yaral boppam it suñu yoon nekku ci waxuma la moom mais man mii nga xam ne jàngaloon na ma nasaraan képp ma jaxasoog ñoom sama yoon nekku ci lu dul sëñ ku bëgg ànd ak moom rek lu dul sëñ tubaa rek euh, da ngay sonal sa bopp waaye nag ñoom suñ borom moo jox cëru àddina ba mat sëkk ci jaamu yàlla ak nangum nangu nangu dogalu suñ borom di leen jox seen cër ba mat sëkk waaye bu ci jéem kenn jéem a kii amul benn njariñ lu sëñ tubaa ku bëgg ànd moom sëñ Tuubaa ku bëgg a waxtaan moom sëñ Tuubaa ku bëgg a jëflante ku bëgg mu jàppale tam jàppale ko ci liggéey sëñ Tuubaa waaw ku bëgg secret bi nag mi ngi noonu ku ci bëgg mu jàpp ko sëñ Tuubaa te muy ci yow parce que bu bu dul dëgg da koy xam ñoom ñooñu ñoom ñooñu wax ku ko ci jàppale bëgg a jàppale ci sëñ Tuubaa mën na laa jàppale ci sëñ Tuubaa waaye nag ku ku ku ci lan la nen rek dina ko xam waaw dara ump ko dara ump ko dara ump ko te xam li ñu xam ñoom li li xam ñoom lépp la xam du seen morom lépp la xam lépp la xam kooku sëñ Muntaxa lépp la xam dara ump ko dara ump ko. mu mel ne sumb na ay sumb naal ay naal ci poroxaan nguurug Sénégal fësal ne dina ko ci jàppale poroxaan dimension bi mu toll nii yoonu murit kenn ku nekk jamono yi bëgg fi kër mu tàmbalee. Euh, nekk ci ci ci doxin boo xam daanaka bëgg jëm fu mel ne tànki yi jëm loolu nan nga ci xalaat. waaw loolu waxoon naa ko ci benn télé ci beneen télévision en 2008 Porokhane Pont Le Bayoupa mooy deuxième ville religieuse bu Sénégal euh, yàqeen ak pas-pas ak mbëggeel ak safoogu yoon murid yëpp am ci doxalinu kër Sëñ tubaa képp ku am Touba kër waxoon naa ko bëgg nga kër Poroxaan képp ku nekk ci jaspare képp ku yaakaar Sëñ Touba bëgg nga kër Poroxaan comme ne nit ñi bëggee Poroxaan euh, ba tax na yaakaar naa ne ku ko bëgg a jàppale tamit te muy dëgg rek ci ci liggéey Sëñ tubaa bi moom tamit dina la jàppale ci baatin waa poroxaan moom li wax ku dem ku mu dem poroxaan it ku ko jàppale moom dina dem waa poroxaan moom mooy léppam ñu la ca sax mën naa ci profité comme damay wax àddina ñoom ñooñu gaa yooyu ma leeral leen amul benn bëgg-bëgg lu dul Sëñ Tuubaa yaakaar naa ne am na ci ñoom bu fekkee am na ci lu ñu bëgg lu ñu koy mën a jàppale mooy ñaari dëkk yi dëkk sëñ Basiru yi nga xam ne moom moom moom moom la ko bàyyeel muy Daaru Salaam Tiib ak Touba ak Bustaan dafay nun waa kër sëñ Basiru mësunoo ñaan dara tey buñ séntu mukk mu ñaan waaye yaakaar na bu fi amee dara luñ koy jàppale ñoom bu bu fekkee te muy dëgg ci ñoom euh, mooy dëkk bi nga xam ni moom la ko sëñ Touba bàyyee muy sëñ dëkk sëñ Basiru mu nekkoon ak sëñ Abibu nga xam ne fa la defee lépp mësu faa ñaan dara nga xam ni courant bu fa nekk sax <laughs> def nañ ko waaye daanaka làmp yëpp nga tëdd ba ca des muy Daaru Salaam tiib muy dëkku sëñ Basiiru euh, donc bu ñu fekkoon ne ñoom ban nañ koo jàppale dama ci profité nañ ko ci jëm a jàppale muy dëkk bi am yoon courant bi doy loolu yaakaar naa bu ñu ko defee bu leen ñaanalee ñoom la ñu wut mën nañ ko am waaye buñ ko buñ nañ buñ ko teg ci dara nag nañ ko teg ci jàppale ko ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi waaw buñ ko defee rek lépp yomb. yéen ñi nga xam ne da ngeen a sëñ bi boobaak léegi nit ñi dañuy yéemu sax ci coono yi muy gàlloo. ci saa yu xëyee di recevoir ay nit suba ba ngoon ak âge bi mu am bi mu nekkee sëñ Tuubaa ak léegi ndax diggante boobu gis ngeen lu soppiku ci emploi du temps hmm. am sëñ bi amul benn emploi du temps benn emploi du temps bu dul sëñ Tuubaa xilaafa gi mu ngi ñëppay ñaan moom sëñ Tuubaa rek lay dund donc mi ngi sant sëñ Tuubaa bi mu ko defee jëwriñ waaye du soppi dara ci doxaleem du soppi dara nii mu ku ko xam nii laa ko xamee 63 ba léegi amul changement du changement coono aussi bu bu ci tiit damay sax wax tey ba may wax benn secret ñu ngi tiit ci âge am ñu nit ñaa ngi ñaan waaye ma leer leen fii je vous prends l'histoire ma dina fi yàgg lool lool bu kenn tiit dana fi yàgg dana fi yàgg dina liggéeyal Sëñ Tuubaa dana fi yàgg lool dina liggéeyal Sëñ tubaa wér gi bu kenn xalaat Sëñ Tuubaa dañoo toll foo xam ni daf koo soxla woon bi fi Sëñ Saaliwu jógee sax am na yoo xam ne mënu ko leeral dafa toll foo xam ne Sëriñ Tuubaa dina ko liggéeyloo na ko ñëpp ñaanal waaye dina fi yàgg nag dina fi yàgg lool bu kenn tiit emploi du temps nag bu Sëriñ Tuubaa amu ci amu ci lu ci lam amu ci saa bu xamee taalibe bi bu doon deux heures du matin sax dina jéeg dina génn coono bu kenn tiit bu tiit bu kenn xalaat ci santeem dara bu kenn tiit ci Sëriñ Tuubaa ko yoral boppam waaw Sëriñ Tuubaa ko yoral boppam yaa ci des nag ya nga xam ni mooy yëfi àddina bu ci kenn xalaat lii moom fii la ko teg lam doon ñaan nag moo nekk jiw ñu suñu Tuubaa waaye yooyu nit ñi xalaat yépp nañ ko ñaanal ñaan moom du doy waaye ma confirmer la ni lu ma am lu ma leer dina fi yàgg dina wér dina liggéeyal suñ Tuubaa mission bi ku suñ Tuubaa jox suñ Tuubaa dina ko yoral boppam waaw loolu li ci des si jur bi may continuer moom moom pare kàddu gu mujj lan nga ci mën a wax ah, ba dana Poroxaan 2018 mooy liggéeyal suñ Tuubaa amul amul leneen day liggéeyal suñ Tuubaa suñ Tuubaa ko yoral boppam Euh, lépp lu man ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa dina ko def waaw waaw mm, ñëw Porokhane yàgg na fee ñëw bu masaa na xilaafa gi taxul temps bi mu fa def mu def ko fi. dimension bi gën naa yokk. ah waaw déet c'est normal njabootu Sëriñ Tuubaa gépp fekk nañ ko fi dèjà kenn ku nekk ci xalifa Sëriñ Tuubaa démb rek la fi Sëriñ Amadou Mokhtar jóge bu subaa tamit njabootu sëñ Murtala dina fi jóge day dimension bu mag la donc ñooñu kenn Darou Mouhty ñu mbooloo mu toll noonu kër gu ne boo ñëw da nga daal sa mbooloo donc c'est c'est du Touba transféré à Porokhane loolu mooy dimension màggalu Porokhane. donc votre dernier mot waaw ma ma ma ma waaw ma soñu taalibe bi di leen da di dalal seen xel nañ dalal seen xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax. Euh, li ma la wax dina fi yàgg waaye itam ma wax leen dina neex lool nii muy reyee noonu la Sénégal gépp di bëggee rey ji nag nañ xam ree ji baatin la waaw